asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatuh mbokki jullit yi kër gii lan doon naanal sëriñ Touba Mbàkke Xaadim Rasul ab église boo xamante ni nasaraan bee ko moomoon daan ci jaamu beneen buur bu yàlla sunu boroom njabootuk sëriñ Touba dikk ni sëriñ Touba mi fi wutu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wuutu fi yonent bi moom kat dañ ko ko naalal lii mu jot ko moomal ko lislaam nu yàlla dimbale nu ni ñaari weer ci lan fas yéene liggéey liggéey bu sàll bi pour moomale ko sëriñ Touba taali bi yëpp jaayu ñu fexe ba am kër gi jëndal ko sëñ Touba ci lu àndut ak bor àndut ak leb àndut ak intérêt di ñàkki taalibe yi kese ñu dajale trois cent cinquante mille dollars tombeek lii nga xam ne mooy deux cent dix million CFA Sénégal ñu ni nan ko moomalal Serigne Touba ba tey nag jot nan caabi ji fay ko kaas suñu jëriñ Serigne Wacké Mbaye ngi ni ànd ak Serigne Talla Seye mi nga xamante ni taalibe Serigne Mame Mor la yoroon commission kër Serigne Touba jiitu ci ak soxna Penda Fall moom Serigne Basirou ak taalibe mam Thierno Ibra Faty mii nga xamante ni mooy Serigne Wacké Mbaye porte parole bi di Papa Gora taalibe Cheikh Amadou Fadal kër gaa ngi nii dajji nañ buntu yi moom ko di ndamal Serigne Touba ndamal bépp jullit di ndamal képp koo xamante nii rek sa xol dana yëg dara lu dul mbaax kër sëriñ Touba ngi nii ñu moom ko mi ngi nii lii lépp lislaam dajji na buntu yéefari dugal fi sëriñ Touba wane ko ci njàngalem xaadimul Moustapha ci li mu wax ni dama bari njariñ te am ma dara lu dul lor mooy Cheikh na Ahmadul Xadim Xadim Rasul kër gaa ngi nii di ñàqu taalibe yi di yalwaanuñ ko saraxuwuñ ko murit yi sëriñ tubaa yi ñoo ko dajale ko ku tedd ci sëriñ tubaa xaadimul mustapha liggéey baa ngi nii murit yi lii mooy ndamal lislaam lii mooy ndamal seexul xaddim leen di defal film bi nag mooy seen mbokkum taalibe papp góor a sàmb taalibe Cheikh Madal Fadal di porte parole seen Cincinnati ànd ak mboole mbokki taalibe yi di wane lii mooy saal ba ca kaw gis ngeen liggéey bi waaye boo egsee ci biir am na lii nga xamante ni mooy liggéey bu am solo ci bëri ji bu sëñ bi ñëwoon ànd ak parkin gis ngeen ko fii salle de réception la fii mooy basement bi jëm ca jàkka ja waaye buñ duggee fii nii nag di bureau boo xam ni sëriñ Tuubaa lañ ko wutal bu fi kilifa gi ñëwee di sëñ bi kër gaa ngi nii bureau baa ngi nii liggéey baa ngi nii boo fi jógee amaat na beneen bu nekkaat fee fële ngay yéegi dem ci skate bi ci kaw liggéeyub sëriñ tubaa ngi nii liggéeyub lislaam ngi nii liggéey bu sell ngi nii mbokki jullit mbokki taalibe gis ngeen lii nu liggéeyal sëriñ tubaa fii di waat beneen bureau gis ngeen nii làmp yi gis ngeen nii bureau bii ñu war koo defar lépp liggéey bu sëriñ Mamoor góor yàlla ñi nga xamit ni mooy baayam di caatu sëriñ Murtala di caatu sëriñ Touba. di sama tur Mourtala liggéey liggéey bu bi ci lislaam sëriñ bi xam ni dafa fonk suñu doom yi ñu yar leen ci diine yar leen ci lislaam yar leen ci njàngaleem sëriñ Touba ñu ni kon lii kat nañ ko def lii ba mën ci am ab école boo xam ne danañ ci doot nu loyati saal doot nu toogati fenn ñu ne heure bi jot na ndax sëñ Touba kat moom moom duniyaa bi moom moom àdduna ak alaxira ndax yàllaa ko ko faye kon liggéey baa ngi nii ki leen ko doon defal nag seen mbokk taalibe góor a sàmm taal bi Cheikh Ahmad al Fadal fii kon kër gaa ngi nii liggéey baa ngi l'islam